bu léegi noonu borom original mais dama ko mere tuuti keroog maa ngi dégg ngay xas waa ay Ngoy TV ak ay Mboboy TV ak yu kenn xamul tey Ngoy TV wax ak yow tey wa ah. ma xam loolu ma xam naa ne man rek kay toog waaw mu ngi noonu ñii la àndal xela yu jongoma ñu ngi noonu wuli ma xam ne man ngay seetaan xam naa loolu di Ngoye TV rek ku dëkk Bawol bàyyi nga ko xel wallaay ndeysaan waaw ñoo ngi nii rek waaw mais kañ nga ñëw sponsoré Ngoye TV ah waaw dina ko rëy ah ah moom mooy bëgg-bëggam <laughs> mooy sa bëgg-bëgg bu neexee waaw Cobra bi nag wuli dëgg naa day def effet de. Cobra bi waaw ci lay naan. ci dafa taxaa ci lay naan. moom bëgg ma mu naan. ah déedéet waaye moom bu muy naan. bëgg ma mu am doole. naa urus naan. beneen mbër bi. naa urus naan dafa ci naan. foo teg léegi dafa di léegi naan. da ko doole ko ba mu tëdd. moo ko bi doole moo ko. déedéet. barke sëñ Sam. da ngay waat. moo ko doole moo ko. amuy bopp. sama patron may wax. waaw ndeysaan